notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie général TQG du noppi ngir améliorer ay service am gamme bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure buy ruy solution baa ngi TQG indil na la ay poignées yu haut de ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignées en inox maanaam yu couleur bi dul changer mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox canaux yi tamit TQG indi na leen ci yu am kaaraange serrure détachable sérial ak radial TQG ñi ngi ci 65 rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité d'Amel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33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 mu boole ñu jéggal di fàttalante tey nag benn tomb boo xam ne euh, mën naa doon ci biir nit ki ko walla aw melo léeg-léeg mu mel ko moom ci boppam léeg léegi aw nit jël ko yóbbu ko fa ba toog fa muy lu ñuy wax rëy bala ñu see ñëw nag xew-xew yi xewoon ci dëkk bi fan yii ñu baree bari dégg na ko noo ngi jaale bokk yim dal ci seen kaw yépp euh, yàlla na fi yam te def ci seen xol ya muñ teñ xam ne xëy ñàkk <clears throat> ndaw lu metti la ci gis waaye lu rëy ay maqaama fa sunu boroom ndax àdduna ji ni mu lëndëme ak ni mu baree ay gàkk-gàkk te gàkk-gàkk yi ak lëndëm lëndëm yépp nit ñee ko fi def ku nit jaare ci moom ñëw bokk ca ñay lëndëmal ak a gàkkal suuf si benn nattu mënu koo féete kaw yal nañu ci yàlla musal waaye it ku yàlla dimbale mu jaar fa ka am njaboot ba yàlla jox ko ko it mu jël ko ci ak raw at yu néew moom war naa gën a sant yàlla ndax yàlla du ko limaale ci ñi fi juróon ay doom bay tax ñu lëndëmal suuf si walla ñu di ko yàq Maam Jaara mi magi borom Tuubaa dox na ci dëkk yi wër Mbàkke ba àgg ci garab gu ñuy wax xël naat lool yaatu ker lool mu ne nañ fi dallu door a jàll laaj ñam àndaloon ker gi ana lu fi gën a neex waay ku ne di wax lu nekk wàjj fi euh, ab gàtt boo noppee teg ca ataaya boo noppee teg ca nangam boo noppee dallu door a dem mu ne leen kër gi dey li ci neexoon mooy fab ay gone yu ndaw yu tuuti yoo xam ne yaa leen jur walla ñu ñu jural la leen ñu denc leen fi ba mu fees dell ndax ku denc ab xale bu ndaw euh, moo denc lim bu bari ci alal ci dencukaayu alal yi ñoo bokk bu àtte te fa ko ko yàllay faye da ko fay soxla te mënu koo amee fanaan yàlla yàlla def ci seen xol ya xolub muñ yu mel noonu nag bokk na ci li koy indi mooy dañuy joxañ léeg-léeg ñi nga xam ne ñoom la ne ci seen loxo jóge ci yàlla yàlla ci ñoom la ko jaarale ñu war a aar waaye bokk yi ñëw ñu war a aar mënuñoo weesu lu dul teg loxo tegaat jël yóbbu ci keneen mu mel ne nag foofee ñuy yóbbu jafe-jafe ba fa gën a am ñañ ko teg ci seen loxo am nañ ko ndax daa am ñoo leen koy teg ñii wara teg loxo bu ñu tegee loxo ba yóbbu ca ñooña bu ñooñu nee nañ ko denc ñaar fukki at ñeneen jógaat taxaw ne droit de l'homme droit fekk ñay ñàkk ñàkk nañ ñoom léeg-léeg sax nga dégg ñu dem naan droit ba ci ñooña fañ leen di denc lal yi ñuy tëdd nooyut wala tàng na walla la ñuy lekk baaxut mu mel ne kon dugg fa day gën a daal di noppale toog sa kër ndax léeg-léeg nga toog sa kër te doo fa mën a am lal bu nooy léeg doo fa mën a am fu sedd doo fa mën a am ndox mooy daan wala lekk yu baax ñu dal la faj yàlla leen yowal gindi ñoom ñépp bañ tegu ci aw yoon waaye nag bokk yi su fekkee ay jullit yàlla mi leen bind ñu gëm ne moo leen bind moo leen fi indi moo leen sant saa bu ñu taxawee jàkkaarloog yàlla ci ay àtteem ci ay ndigalam bu ñu xam lu ñu dul gis ci ay nattu ak i fitna ndax su boobaa day génne ci loxoom lam tegoon loxo lépp sañ na ca génne loxoom ne dem leen seet ku ko mën a àtt te kenn mënu koo àtte ku dul moom yàlla noonu yàlla boole jéggal bokk yi ayab alxuraan bi ma jëkk jàng <coughs> euh, suñu boroom daf ciy wax ne bu ëllëgee aljanna te aljanna yi ab jullit fii ci àdduna lay tàmbalee du lu ñuy digge rek ñu naan kañ la ak fan la ak naka la waaye àjjana yi ab jullit mi ngi tàmbalee ci xelam mu dal fii ba xelam mu dal tax mu mën a jaamu yàlla looloo nag la ko koy may mu mën a jaamu yàlla bu baax ba bu ëllëgee mën a dem aljana dañ koy dig mooy faw mu tàggoog ay jikko yu bari faw mu tàggoog ak i melokaan yu bari aaya boobu dafa wax ne bu ëllëgee aljanna ñam ko fa bàyyeel mooy ñi newoon fii ci àdduna te mësuñoo jaar walla ñu jëfandikoo luy nuroo ko rëy yàlla nañu ci yàlla musal tilka daaru alaaxiratu najcaluha lillazina laa yuriduuna uluwan fi l ardi wala fasaada fasaad wax lu woon wala fasada am nañu ko tekkee rëy yonent bi sallallahu alayhi wa ne ku ngeen seen mu dugg aljanna te ak aljannaam tàmbalee fii mu am xel mu dal lool mbedd mu ko soob mu man faa jaar fu ko neex dem ci fu mu war a dem na ngeen xam ne jaar na yoonu àjjana <coughs> waaye nag loolu kenn mënu koo am fekk luy tolloog fepp suuf mi ngi ci biir xolam bi ci rëy kon ëllëg kuy dem aljana itam kuñ atte ba nañ ko yóbbu aljana dañuy xool digganteem ak rëy nu mu def su ma see jëfandikoo rëy fenn wala mu meloon ko moom wax yonent bi moom du jaas wa maa yantiqu anil hawa kon kenn dugg aljana te fekk yóbbaale na fa benn tomb bu rëy dal di waxaat ne rëy mooy waral nit ki di naw jëfam wala mu bëgg ñi di ko waxtaanee nee na yaar yooyu day lekk lu baax lu nit amoon ni sawara di lekk mat sëñ mag bi leeral ko ci téereem boobu ne buñ ñu la ko laajee neel mooy koo xam ne fu mu toll mi ngi ngand ngandalu moom ci boppam walla fu ñu ko yéegal mu xeeb ko ne na njàll weesu naa fii war na maa weesu fii loolu nag su ko ku ko xas ba mel li mu koy jural mooy saa bu dëgg jotee ba jëb ba ba ko dana fexe ba dëgg tegg ko benn moom ci boppam mu falan ko ak loxoom walla aw nit falangal ko ko yàlla na yàlla musal ci loolu ànd ak it fu nekk li muy gëm te jàpp ko moom mooy moo féete kaw ñépp lu nekk war na ko lu nekk war na nit ñi ci moom waaye moom dara waru ko ci nit loolu tax mu di ko def mooy da leen a xeeb maanaam saa su nekk lu lu luñ ko war a defal rek waaye moom warut defal kenn dara yàlla yàlla musal ci rëy bu ñu demee nag ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfinam danañ xam ne su waroon a am kuy rëy wala muy ngand ngàndalu ni ko jamono di waxe wala muy tollu tollu nenn ni tollu tollu nag boo ko déggee mooy tolluwu na danaa bëgg a toll bu ko kenn sañoon xanaa mu sañ ko moom sallallahu alayhi wa waaye nag daa fekk mu ne kenn du dugg aljanna te loolu mi ngi ci moom te waxuma moom waaye moom nee na aw gaay lu mat fukki nit yuñ xam seeni tur yéen ñii na ngeen jëm te fa lañ koy fekk yàlla nu yàlla boole sa mooy al ashratul mubashara bil janna euh, muy ñeenti saxaaba yi yi ko wuutu ci xilaafa gi bi mu fi jógee ñeent ñu siiw ñooñu ak juróom-benn ñeneen euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wane na bind ci ne kenn munta tollu nenn ba war a rëy rëylu ànd naag gaañ yi ñuy tukki biñ demee ba naaj tàng euh, ñu ne léegi tey añ jot de ñu ne axakay ah ñu seet fenn ñu dal fa ñu ne kon nañ daal defar gàtt bi ñu ne ko mu ne sa ñu ne ko sa ndigal da déglu mu ne ay ca nañ ko daal defar am ku ne man mii maa koy lewetal kenn ne man maa koy fees kenn ne maa koy togg bu ñu noppee ñi ci des ñëpp togg yonent bi ne mayit am na lu ma ci bëgg a sasoo ñu ne ko déedéet dara la ci mu ne axakay ah ñu ne ko sa wax waaw la sant loo ci bëgg sa soo mu ne maay taxaane matt mi ñu koy toggee ba noppi toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi xanaa moom ab jullit mënta toll nee na ba weesu ko moom yonent bi yàlla bu ñuy wax suleymaan ay turam aw turam ñëw na ci alquran lu bari yàlla ko defoon ab yonent ba noppi jox ko nguur benn bis muy doxi ay yitte ne nongu ci kaw lal bi e, loolu du jaaxal nitub jamono buñ ne ànd ak taw ci kaw lal bi lal bi dox ci kaw jaww ji ànd ak soldaar yi ku xam jamono yi léegi du ko jaaxal ku ne xam na ni fu fu nit jëm bu xawee sori tuuti du dox du dugg oto léegi rawatina muy jéggi ak géej danaa nongu ci kaw jaww ji di dem ba àgg ba mu ko defee nag xool soldaar yi nag gàññi ci ginnaawam mu tiim fu bari di xool naan lee kër la lee ab dëkk la lee ak jur la guy dox ci àll bi tàmbalee gis boppam na waaw kon ndekete man man de xanaa kon man maay waaja kon lal ba tàmbalee rëng-rëngi mu fëgg ko ne ko dalal waay xanaa xamoon bi yonent war ci sa kaw ba noppi di buur mu ne ko soo bàyyiwul li ngay xalaat rek ma dal de soo ne teg xam ne yàlla mooy joxe rek ma ne tekk de waaye Seydina Anas nettali na e, ku baax ki mas na leen a nettali ne leen rëy ndax gaalug Seydina Nuux alayhi salaam muy départ yàlla da ko ne waxal ne bismillahi mujraha wa mursaha mu wax ko irkabo fiha bismillahi mujraha wa mursaha moom moo ko wax nit ñi yàllaa ko ko wax mu wax ko nit ñi irkabu fiha bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la gafurun rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibaal gaal gi di tëmb léeg aw duus yëkkati ko ba ca kaw mu loolu sax taxut ñu jóg tey waaye aaya ba fa mu jeexee mooy wanaadaa wanaadaa nuuxun ibnahu wa kaana fi maazilin yaa bunayya irkab maanaa wala takun maa alkaafiriin qaala sa aawi ilaa jabalin yaasimuni min almaa qaala laa aasima alyawma min amri llahi man rahim foofa it rëy feeñ na ba sayidna nuux na dugg leen ku bëgg mucc na dugg ndax gaal gii nekkul ci samay loxo ci loxo yàlla lay nekk ci loxo yàlla la nekk te rëy na kut ñoom yéeg doomam doomam dara gënu ko jege nit ki doomam ne wadd na law taxaw ci wenn doj wu gudd xool bi yërmande bi jàpp ko ak doom mu ne ko e ñëwal yéeg ni ñépp mu ne ko doj wi moom taw mus sa taw a taw ba agsi ci mu ne ko tey ku dugg ci gaal gi doo mucc waaye mu téye fa mu ndax rëy ba ñuy tàmbalee waxtaan ba mu nar koo yeey ci gaaw ñëw ci gaal gi balaa bëye wus wëy mbuus aw duus dox seen diggante gisanteetuñ doom ja lab wa xaala baynahuma al mawju fa kaana min al mugraqin la taxoon laa aasima al yawma min amrillah mooy yàlla dane suuf si loo am ci ndox génne ko te moo ne bu ñuy wut suuf bu ñuy wut ndox ci dëkk xanaa mënoon nañoo xaar taw bi ndax taw ci kaw lay bàyyi ko ñu ne nañ xaar taw ndax taw nit ndox mi nit di gis muy wàcc moom ci kaw lay jóge waaye bu ñuy gas teen ci kaw lañ koy wuti wala ci suuf ci suuf lañuy gas kon fépp am ndox yàlla nekk fépp lu ne moo ko def fu nekk yàlla nag ne suuf génneel li nga am ci ndox asamaan loo am ci ndox wàcce ko asamaan di taw suuf si bal la ndaw ndox mu nar a bari bi doomi nuuxin ja labee nag ci pexey seytaane seytaane ci boppam iblis dajee ci gaal gi seydina anas nee bi mu yéegee ci gaal gi nooxin seydina nuuxin xool ko xool xàmmewu ko ci kiñaa yi mu yabawaan fële mu ne ko yow kan mu ne ko iblis mu ne ko loo bëgg mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla mu jéggal ma bakkaar yaa ma ko yama defoon sama diggante kooka bakkaar yi ma ko def ba mu teg ma coono bi mu ma teg ba ku ànd ak man rek échec yàlla waxyu Seydina Nuux ab yonent la woon min ulil azm ne ko ne ko tuub gi moom lu yomb la na dem ca bàmmeelub aadama alayhi salaam rek sujjóot fa ñaari sujjóot jóg toog mu ne ko sama xel xalaatu ko mu ne moom xelam xalaatu koo xam ne ba muy dund ni yow ne jonn ni nopp dañ la sujjóotal ko nga lànk ba mu la teg fi yi la dal nu may demee ci bàmmeel dafa sujjóot lànk naa kon moom daa mel ne amagutum jéggal ba léegi si yàlla nu yàlla musal ci bokk ci kuréelam moo ne Seydina Yuusuf alayhi salaam it day suñu boroom wane na ci moom kéemtaan benn bis lay xool ab seetu nii rek gént géntug yonent ak gaat nga am gaat nga mooy ak a neexoon nangam am fu mu ko defee dana ko teg dana ci teg bëtam mu xool seetu ba yàgg xool bakkan bi mel na bakkan walla mel xool yéen yi xool ñuddu ji xool tuñ yi ak nopp yeeg jëbeeg lépp lu ci ne mel na mu mu daq ñépp mu ne man de xam naa ne su ma doon jaay danaa jar lu bari ndekete yoo yàlla dogal na loolu ba noppi ci la ko yàlla nattoo ba bokk ya sànk ko ba ab jëgg for ko jaay ko ñaata lañ ko jaaye woon ñaar fukki dërëm ak ñaar te dane woon su may jaay xanaa bu ma doon jaay dana jar lu bari de ana lu ko teg loola mooy daa gis boppam bindam bi gisu ci bopp gisu ci yàlla waaye boppam la ci gis moo ko teg nattu boobee bokk na ci la ko teg ci dogalab suñu borom moo tax sidna abdullahi ibn abbas nee na yonent bi jàngale na lu nekk jàngale la jàngale na lu ne moom de su ma xool ci seetu ba gis ne moo daq ñépp ni mu leen gëne nee leen gën a rafete ci bind amul looy xool ci moom loo xam da nga naan su nàngam meloo nangam lu ci ne war a mel la mel nekk fa mu war a nekk moom ba xool ci seetu yàlla lay gis dana danaan alhamdulilah rabbil alamin yàlla mi nga xam ne moo ma bind nii ma mel wuutale ma ak ñi nga xam ne seen taxawaay dana sollu mel ni njamala ak bukki nga xam ne kanam gi musut gannaaw gi waaye ni mu def li ñuy wax euh, rab yi nga xam ne it kanguru kanguru nga xam ne euh, bopp bay jiwut bopp bay féete suuf gannaaw gi jëm kaw mu safaanoo ak njamala ak <clears throat> bukki maa ngi sant yàlla ci bind bi ma bind def ma nit ma mel nii ma mel su may dox am tawazun fenn du sut sama room bu ma bëggee sëgg sëgg ba boo tegee ci bi mu jàngale julli sax dane kuy sëgg di julli rukkoo ni muy rukkoo ay day mel ne boo tegoon ab kaas ci kawam kaas ba balaase ni woote nit mën na ko nit mën na it taxaw jonn ku tëdd jaaxaan talal ay loxoom ak tànkam bu doon dox dana xam ne nit mën naa taxaw ne jonn ba fenn du dëng waaye su ko neexee tëdd wet lu yàgg su ko neexee defeelu su ko neexee jaaxaan moo tax suñ Falilu Mbakke ba benn waaye ñëwee di ko laaj laajub yéej ji laaj boo xam ne wedd la ci jublu ne ko yàlla man la man na lu ne ba mu des rey gëléem jaaxaanal ko yàlla ne ko waaw yàlla man na lu nekk waaye kàttanam googu ci la waajale woon gëléem bi muy dund sax mënut a jaaxaan waxuma laa bu mu dee moo tax Seydina ab Ibnu Abbas nee na moom ba mu déggee yonent bi di waxee noonu la noppee yéem boppam ci lenn lu ci nekk yàlla la cay gis te moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee suñu borom subhanahu wa taala fa mu nekk ay escalier escalade ay escalier moo fa yóbbu nit saa bu nit ki seqee benn tànk teg ko ci benn escalier ne escalier bi ma teg sama tànk xam naa ne yàlla rekk moo man moo tax ma mën ko cee teg nee na yàlla dana ko dana ko jéggil ñaari escalier yom duutu yëg ba ba muy àgg ci lu gaaw te du sonn waaye su fekkee bu ko ci tegee ne ah am na mag ñoo xam ne que mënuñoo yéeg maa leen ëpp kattan ndax dama leen ëpp condition physique yàlla na damay def saa bu teggee benn ma teg fukki escalier dox bi gën a sore mën naa bañ a àgg yàlla nu yàlla musal ci loola li tax nag ñu ne léeg-léeg nit yóbbu fa boppam wala aw nit yóbbu ko fa nit mën na faa yóbbu yóbbu boppam te lu néew lañuy xam ne kii dafa rëy waaye léeg-léeg nit ñi jànk ko ba yëgal ko ca kaw ba ne ko weesu nga lu bari dañuy dem sax ba naan kuy dawal otoom moom ko jënd otoom di ko dawal ñu ne ko wutal ku la dawalal xanaa léegi maandu amatul bu ne lu tax ñu ne ko weesu nga dawal otoom moo ne bokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan yoral boppam gëléemam wala fasam sëñ bu mag bi nekk ba fas yam daan war mooy waral boppam moo koy wammatal moo koy conduire fu mu bëgg a dem dem ci boppam léegi kon dawalal sa bopp fu mu xaraame waaye rëy lañuy ñuy ci nit ki bis toog na ci njaareem at jëm fay jëkk a dem amagutoon jàkka ju mel nee mu am mu ñëw taxaw ku ne mu xool la junj la ne la waxtu wi jot na ñépp ne cell mu ne kon da ngeen rëy a xaaral ma nodd man daal yëkkati ca kaw ña daawul ñëw sax ñëw nañ ne baat boobu baat bu bees peq la ci dëkk bi kenn xamu ko te moo ne ñu ngi koy gis saa su nekk mu ne képp koo xam ne yaa ngi lekk ci xéewali suñu borom yi waroo ko wóroyee jaamu waroo ko wóru sa jaamu rawatina yëkkati aw turam ak turu yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam te nodd laa ilaha illa muhammadu rasulullah moo ca nekk moo tax xayaala salaati ayaala falaahiyam ja barkeel lool ndax ku daawut ñëw ku daan ñëw ñëw na ku daawut ñëw ñëw te ku ne bëgg na it mu sant na demal nodd waaye saa bu kii noddu xawee yéex a nodd mu noddal boppa moom te moo ne jamono ji tey jii am na ñoo xam ne ba leen bëggoon nodd loo rëy nañ ko rëyal nañ ko seen bopp rëyal li xaam ca kaw dañ naan kenn bismillah xamuñ kooka mën naa li xaamam déet waaye ñoom rëy nañ koo def waaye day feeñ ci woote yi ñuy woote dangay dégg ñu ne njabootu diw gi lañuy woo teg ca taalibe yi xanaa taalibe yow bokkuñu njaboot gi waaye dañuy yëkkati ñi teg ci kaw ñi ñu nangu ko loolu waruñu ko nangu dañoo war na ñun ñëpp ci njaboot gi lañ bokk li ko tàmbalee ci diw ba ci diw ak taalibe yi xanaa ab sëriñ bu ab taalibe amul nu muy amee moo tax ba genn kilifa génn ma bu yéeme bu am solo dañ daan ñaan bi fi sëriñ Saalihu nekkee ak sëriñ Murtada ñoom ñaar yàlla nañ fi yàgg te wér mu ne ah yéen a ngi ñaan loo xam ne day bu amee ñoom ñooñee danañ ko yëg ñoom ñu ne waxati na mu ne waaw xanaa da ngeen naan nañ fi bokk yàgg te wér ñun ñëpp ndax suñ demee bàyyi leen fi ñoom ñaar léegi tey ñu bëgg a waaj jàpp ne ana sa talaga duñ am ko leen ko jox te fi mu toll nii seeni at toll na ci cawar teg na bëri dem jël sa talaga wala wuti ndox faaw keneen na lañ koy defal keneen na ko man moo ne suñ mag bii de jàngale naa ci njaareem ci rëy ak diis rëy mooy diis rek benn bés ak lakk am ñu yuuxoo ca gannaaw kër suñ balla coroo kër sëñ Balla Coro ci njëre mooy fii école tuwaab bi nekk boo weesoo boo jeexalee miiru kër gu mag ñu yuuxoo sëriñ bi ne ñu ne fii ñu ne noo ngi fi mu ne dem leen wàllu ji ñooñee ndax mag mu dër wax yoo wax loolu mu wax jaaxle na ñépp fax dem ba ñëwee mu ne lu mu doonoon ñu ne ko ak lakk la woon de mu ne mbaa la ca ak jom mi sax la mag ñi daan wax waaye dañ ne ko ak lakk la mu ne mbaa la ci ayib demiwut noonu ñu ne ko ah demiwut noonu de ndax lu ca woyof rek génne nañ ko mu ne ah ñu ne ko lu ca woyof rek génne nañ ko de waaye yu diisee moom daa lakkaale ak sa waras mooy waxe yonente ba mu waxoo ne laa yadxulul jannata man fi qalbi mithqaalu darratin min kibr kon rek luy tee ab jullit dem aljanna lum néew néew mëtta xeeb ndax mëtu ko mëtu ko ndax amul solo amul solo yu bari léegi tey mu def solo su rëy góor gu ñu daan wax gu koon mesere gii ci wetu waa moo ko daan wax daa fekk ñu séddale ba noppi mu ne man de damaa yeex a ñëw wax naa ñu ne ko yeex ngaa ñëw de waaye bàyyi diw jàppal ci lii bàyyi solo lay la tudd bàyyi solo jàppal ci lii amul solo de kii ne ko amul solo kii ne ko amul solo mu ne ah léegi tey mu def solo nag ndax yaar yu amul solo sax ku ko boole mu def solo waxuma la yett yu amul solo waxuma la bu ñu ko misaalee ci ku sol mbubb mu mbubbum cuub mu jekk mel na mu war a mel mu romb ay gone ñu wis ca asib bu xoolee du ko gis fi mu ne nii moom ci saa si danaan amul solo rek dem waaye su demee ba fan bu xoolee dana xam ne amoon na solo ndax da koy bënn bu dee eau de javel mu ne amul solo su demee dana gis tupp tupp yu weex yi ku ko gis xam ne ki bokkul ci couleur bi te su boobaa su dee ku xay dëgg dëgg mbubb moom dutu ko sol moom day seet ko soxla mu jox ko koo xam ne yàqalu ko ko waaye bu dee ku rëy dëgg dëgg dutu ko sol danaan jong naa sol cuub gu seere nii muy am ay tupp tupp eau de javel na ko jox keneen te moo ne bokk yu ku rëy foo ko fekk du amal nit ñi njariñ junj naa ko sànq day jàpp ne lu ne dañ ko ko war a defal mbokk yi xoolal koo xam ne day rëy ba bu àgg ci xames ñu defal la ngay raxasu ndax ñaari loxo bu dul ab robinet nit mënu ko raxas defal boppam di raxas loxo mu set na mu war dana jafe waaye koo xam ne dañ koy defal mu raxasu xames na ko waaye moom xanaa war naa maa defal kooka waaye da koy bàyyee la mu koy defal mu raxasu benn ñaareel ba bokk moom di lekk ñu bokk ndab li te nee nañ tarqiya nit bokk na ci di bokk ak moom di lekk di ko wan nañuy lekk waaye am na ñoo xam ne bu ñu bokk ak nit ki di lekk dara taxul leen la waaye dañuy tagal ñay lekk day tagal kay lekk képp moo ko tax tokki ndab bala moo lekk mu lekk ba nopp réy danaa tax du ko ne bëgguma nangam ji réy tax du ko ko wax dana ko tegal ba tegal ko loo xam ne bëggu ko mën naa jël kaani sax tooyal ko te du ko réyee tax du ko ne du ma lekk kaani baaxut ci maam waaye li ci gën a yéeme mooy raxas defal la nga raxasu ñu fompal la sa loxo yi sa loxo yi nga doon lekk yow ba noppi wommi la boole la ca yàlla noonu yàlla musal ci musal ci rëy kooku nag ku mu nekk ci moom rawatina dëgg jib ko moom dëgg dëgg jib jub ko dëgg jib mooy dëgg jub dëgmal si ko lu man ci fanq ko dana ko fanq day laaj gannaaw bi lu ñu wax ñu ne ko wax nañ nangam ak nangam mu ne bettuma woon de te yàlla xam na ni mënoon naa bañ a xam mën naa bañ a xam li ñu wax waaye rëy tax mu yanu responsabilité bi ne xamoon naa ko moo tax ma làqatu ji soo ko xamee looy làqatu ji tamit dëgg wala moom mu dem dem ba yàgg mu war jubbanti koo xam ne ak jubbanteem ci ci moom la war waaye réy mooy tax ak ak ak ak yu bari day bàyyi noona rek ba kooka mbedd mbedd koy jubbanti yàlla na yàlla musal ci loolu kon boog luy tax a dem aljanna lum tuuti tuuti mat naa wër def ko liggéey luy tey dem aljanna lum tuuti tuuti mat naa jël waruwaay wu gaaw di ko daw yàlla na yàlla musal seytaane ak i pakkam te def ci suñu xol yi ak jub ak dégg gu ñuy mën a toppee li yonent bi bëgg ci ñun yoon nañu bëgg ñu jaar ca sallallahu alayhi wa te jaarale ko ci njàngale mi nga xam ne lu ci ne suñu mag bind na ca dellu di jàll bokk jullit yëpp xew-xew tis yooyu fi jaar yàlla na leen yàlla wutalal lu fa des te aw leen te ñoo ñu koy def it ñu teggi seen tànk xam ne ku raw fii itam ndax waadur waadulam ñoo wax ba génn la it ëllëg a ngi xaar te bis mu gën a jege te faafa kenn mënta raw te bokk yi gone ku ko fi jële su ëllëgee ci tey su ëllëgee su la laajee lu mu def ba nga jëlee ko fi lay dana jafe yàlla moo wax di wax melokaani alaaxira ida shamsu kuwirat wa ida najumu nkadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida alashaaru wa ida alwuxuusu xushirat wa ida albixaaru sujirat wa ida alnufuusu zuwijat wa ida almawudatu suilat bi ay dambin qutilat am na ñooñ ca jamono yu yàgg yi bi yonent bi ku masaan am doom ci jigéen da day rusa wax ne soxna si yaweeku na da koy rusa wax ndax bu ko waxee ñu ne ko lu mu am waaye anoom koy def bu dee jigéen léeg bala moo yuuxu tàkku mu kutt ko gas suul moo ne yaayam ko bañ de ndax ñoom ñëpp ci juboo woon ne doom ji jigéen gàcce lay indil nit ëllëg rek te loolu du dëgg bu jigéen amul góor lu mën a am Euh, mooy fi mu waxee ne wa ida bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawaara min alqawm min suui ma bushira bi ñu koy def ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne góor ak jigéen ñoo yam kàpp yàlla nag dafa wax ne wa ida almawuudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat euh, bu ëllëgee xale bu jigéen bu ñu rayoon dana jàkkaarloog yàlla yàlla ne ko lu ko la fi indi mu joxañ ki ko rey la yàlla ne ko laaj laaj ko lu la rey bu dee mag mën naa lay da doon xeex da doon sàcc ñu rey ko yoon a ko rey ñu rey ko waaye gone gu mënta wax ëllëg lay xaar dara nag jëru ko dara lenn lu ñuy dig nit lu jar rey mag sax mag waxuma laa gone moom gone moom ëllëg dalay takkal bandal bandal boo ko déggee mooy li ma ngi daan takk seen jëy fu mu jëm mu jëm fa naan mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii ñëpp di xool te bokk yi foofa ku ko dul xalaat loo neex bay boo nga def ko waaye di bis nga gis koo xam ne doonoon na lu ne lu ne doonoon na ko ñu tëral ko mun a ñaw dutu man ñu gas ba mu xóot ñu ci ko dem te moom rek moo mën a wax moo yàlla te mu ñaar ñooñu dendalewu ma yàlla kenn waaye ku dem mënut wax te yàlla du wax du wax ndax laa taatikum illa baxta moo tax lenn lu ñuy dig nit ci kaw suuf lu jar di faat jëru ko loola dalaa dab lu lay dab dong la ci sa dund te lu lay dab jër sa dëpp lépp lu lay dab jëru dëpp su dee ak pal su dee alal dund nga lu yàgg wóoru sax ba xam li nga dundoon da nga ko euh, ñaata ñoo faatoo ci fal gañ leen faloon ñaata lu ñu mujj def ay seere yu rafet rek te fekk la muy wéyee yàlla dong nga ko xam mook moom te mënut a wax yàlla du wax te ëllëg lay gën a doy waar yow ma tubla sarair fama lahu min quwatin wala nasir yàlla nañu yàlla mu seytaane ki pakkam ndax loolu lépp pexe seytaane rekk la eh, seytaane day naatalal nit lu dul dara day fiir nit day jël lu nit bëgg day fexe ba xam lu nit bëgg mu teg ko nële gasu kàmb ci diggante bi ba noppi naa ko soo gaawee gaa yi fab ko su gaawantoo dugg ci pax muy tàkk yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie Générale TQG du noppi ngir améliorer ay service am gam bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure buy ruy solution baa ngi TQG indil na ay poignées haut de ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignée on inox maanaam yu couleur bi dul changé mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox kano yi tamit TQG indi na leen ci yu am kaaraange serrure détachable sérial ak radial TQG ñu ngi ci 65 rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité d'Amel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33 879 28 28.